<laughs> ndege ndege de Farba ku yaru la Farba Ngom ndege ku yaru la état mu mu mu mu xëjut ci bopp baadoo la rek état moo xëjut ci bopp baadoo la waaye Farba ndege ku yaru la ku yaru la ku ku discipliné la <laughs> ndax gis sëñ bi gaayeen di sànni xer Macky Sall lu ñaaw lu ne mu wax ko ko waaye Farba fi mu toog ne teg pinge ay ciiram yëngu sax defu gees sax lijjantiwu ko laala mi ngi mel ne yëngu non état baaxul quoi état ni muy def doomu aadama moo baax léegi far ba ba dama koo tegoon ku réew dafa koo tegoon ku réew nag moom loo masaan wax ci Macky Sall donte da nga koy xool lu baax sax dana jóg bu nekkee ci assemblée bi kenn du laajte ba xam Farba ngi fi war a nekk fi waaye tey nekk nit ñi naan ana Farba ndeke Farba ngi fi ko état mu xëjul ci bopp baadoo la ko après laa ko comprendre daal ndax Cheikh Abdou bari Dolly lu ne waxal na ko Macky Sall tey waaye Farba fi mu toog ni muñ jógu fa waaye nag yaru geeg toog geeg fi nga sëy ci rek lépp da nga wuy ji parce que danga mëq